loolu. Mm-hmm. jërëjëf. d'accord jërëjëf euh, yaa Seydi alors euh, ñu daal di ñëw nag ci euh, détenu politique yi ba gis nañu dalaloon nañ kii di Kiné ci téléphone bi mu daal di ñëw ci seen condition de détention di jigéen ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy défendre soxna yi féete fële ca camp waaye laata loolu mam yi ni ko tàmm defee saa su di soutenir kii di Mati Sarr ak oustaz Assane Seck ñu nekk ci kaso bi ba tey jotul fii ak président président euh, fii ak euh, présidentielle yu 2024 ñu daal di de euh, dégel bi nga xamante ne dina am ci réew mi tàmbalee ko ci génn ñi nekk ci prison bi te la leen fa téye rek du leen lu dul délit d'opinion ñu daal di leen bàyyi ñu ñibbi ci seen i njaboot. waaw on espère que loolu ngay wax noonu que justement dina am. Mm. parce que gis nañu démb ay Tall Sall. Euh, ministre bu yees bi ñu dénk wàllub justice ci Sénégal. Mhm. Euh, décliné ay ñeenti poñ yoo xamante ne ci loolu lu fas yéene liggéey wax na également ci li nga xam ne moom mooy condition de détention yi naka la ñuy def rapidement pour mën a euh, atte ñi nga xamante ne ñoom lañu war a atte ba wàññi limu ñi nga xamante ne ñoom ñooy condition de détention yu bari yi nekk ci biir kaso yi au-delà de tout cela je pense que moom ci ñeenti poñ yooyu mu wax yépp bon dina appliquer la justice sans pour autant mu am injustice. Mhm. tënk rek euh, ci ni mu ko waxee boobu ci nasaraan li ma ko bëgg wax rek mooy euh, sunu yaay Aïssata Tall Sall na xam ne mhm. moom dafa am au-delà de tout cela benn défi bu majeur boo xamante ne mhm. euh, moom la ñuy xaar ci moom dañ ko ciy xaar ci moom benn parce que jigéen la te ma fàttali ci comme moom mooy ministre de la justice bu yees bi. Mhm. am na ci ay jigéen ñoo xamante ne ni ñu ngi ci biir kaso yi di amal grève de faim te pour man loolu mooy dossier bi mu war a njëkk a lijjanti. parce que loolu mooy li jot a taxaw nii mooy lu bees li mooy actualité bi et que mooy également daf dépendre ci li nga xamante ne moom mooy euh, condition yi nga xamante ne ñoom la jigéen ñoo ñee nekk ci kaso bi moom miy jigéen te jiite wàllub yoon pour man war na déjà commencer saytu dossier boobu xool li mu ci war a mën a saafara mu saafara ko le plus rapidement possible ba nga xam ne ñooñu dinañu dakkal seenu xiifal mhm. beneen bi ci topp mooy leneen li ñuy xaar ci moom mhm. danoo xamul nag ndax dina am euh, vraiment courage aller jusqu'au bout par rapport ak loolu mhm. est-ce que réellement Aïssata Tall Sall mooy doon personne bi nga xamante ne mooy ñëw xëy na soppi tuuti li nga xam ne moo fi jotoon a xew bi fi Ismaïla Madior Fall nekkee mooy jàppe gu bari gi jàppe gu tar gi ba jur kaso yi nekk ci situation gi mu nekk nii tey on espère que dina leen permettre ñu mën a libérer euh, vraiment ñi nga ci tudd ñëpp muy mati saar Niang oustaz Assane Seck ñu suñu xel dem na ci moom parce que tey ci àjjuma ji mhm. ak ñeneen ñi nga xamante ne Falla Falla Fleur ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kaso yëpp que ça soit muy góor que muy jigéen que muy mag que muy ndaw te nga xam ne na nañu génn ñu génnee leen ñu mën a dellu ci seen i activité ndax comme tu l'as dit au-delà même ci élection yi nga xamante ne fa la ñu jëm mais dafa di tout simplement benn besoin vital boo xam ne dossier la bu Aïssata Tall Sall war a lijjanti bu ko mm-hmm. defoon nag euh, dina am lu bëri loo xamante ne xëy na dina ko rattrapé waat ci ay poñ donte am na lu bëri loo xam ne moom itam wax dëgg yàlla war nañ ko mën a wax ci période bi nga xamante ne mu ngi jiite li nga xam ne moom mooy affaire étrangère ci mhm. yenn doxalin wala yenn position ne am na ko ci te xëy ko ci woon xam nga Aïssata Tall Sall dafa am benn image xam ne dañu koo pendroon ci moom mhm. euh, te li li gars yi di wax ne parfois wallahi dafa mel ni waaj dafay suul ndaanaan tuuti mhm. boobu la nit ñi amoon ci moom donc yenn position yi nga xamante ne am na ko euh, par rapport ak question troisième mandat état ak leneen lu ci topp dafa dafa bëri loo xamante ne maanaam dafa wàccee estime bi nga xamante ne ñi amoon nañu ko ci moom aujourd'hui avec ministère de la justice bi nga xam ne yor na ko ci contexte bi ñu nekk nii mhm. on espère que moom période bi muy nekk ministre de la justice benn journaliste dootul dugg ci kaso bi fii mhm. ak ñu jëm ci élection yi parce que lu ñuy gën jëm ci élection yi gën am lu nu wax na bu mhm. te kon bu dee délit d'opinion kese la ma volontaire par rapport ak réew mi ni muy doxaleeg leneen lu ci topp. Mhm. daanu xool saytu luxu xool suñu bët bii bu baax a baax par rapport ak li ñuy proposé ak doxalin yi nga xam ne moom moo fi nekk actuellement bu dee loolu rek moo jëm ci wàllu délit d'opinion damay ragal ci réseaux sociaux yi ragal ci ëttu taskatu xibaar yi ak leneen lu ca topp lu ñu ci dundoon te mu traumatisé nu tey ñu continuer di ko dund te on espère que ci biir ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, lenge yu bees yi ñu ko dénk jëm ci wàllub yoon qu'elle mhm. ne va pas aller dans ce sens-là ou en tout cas que la mhm. justice n'ira pas dans ce sens-là nanu fexe ba libérer ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kaso yi nabu koor mhm. nañ leen bàyyi ñu dellu ci seeni kër nanu libéré ñi nekk ci kaso yi te bàyyi leen ñu dellu seeni kër nanu mm-hmm. libéré ñi nekk ci kaso bi te bàyyi leen ñu dellu seeni kër mm-hmm. ñi nga xam ne yelloo nanu ko yépp ñi nga xam ne ñi ngi ci biir kaso bi yàgg fa attew ñu leen nanu leen atte bu nu waree tëdd tëdd ku war a génn génn effectivement et puis ñi nga xam ne mooy vague de grève de faim bi nga xam ne moo moo moo law depuis un certain moment mm -hmm. ça aussi c'est une patate chaude mm-hmm. pour l'état du Sénégal une patate bu ñu war a quand même régler il va falloir trouver centre problème bi lan la lijjanti ko une bonne fois pour toutes et je pense que dina nekk également une pierre deux coups parce que dina permettre ñu xaw a corriger wale bu fekkente ne am na yenn conditions yi difficiles yi nekk ci maison d'arrêt e de correction yi nekk ci Sénégal yépp ñu mën ko saafarawaale en même temps xam ne détenu lu mu nekk nekk prisonnier mhm. luñ ko xañ-xañ liberté am am na ay droit yoo xam ne dañoo war a continuer di sàmm di ko ko sàmm euh, jërëjëf euh, Ajaratu alors euh, yaa Seydi mhm. situation yi nga xamante ne moom la jigéen ñi di dund ci camp pénal ak Aïssata nga xamante ne ni ki démb daal dina jël fonction ci ministre de la ci ministère de la de la justice ndax en tant que jigéen warul saytu condition de détention yi nga xamante ne moo amee ci camp ba ay soxna ay jigéen nekk fa di di def grève de la faim fii nii ñu toll. waaw jërëjëf euh, euh, madame le ministre ñu ngi koy félicité dafa mel ni suñu waxtaan démb dégg na ko. Mhm. te nag euh, borom njaboot la jóg na. Mhm. te père de famille la xam na ak yelaf te yàlla may na ko ku neex bëgg la ndax it ku ku ku ku ku seti wax la. di ñaan Aïssata ci li nga xam ne jël nga ko parce que xam naa lu ko marqué la parce que jigéen dama koy wax rek dafa sensible ji jigéen jigéen mooy maam mooy yaay mooy famille mooy lépp mooy doon kon bi nee ba ne nañuy xiba seen bopp rek oh il faut arrêter kon moo tax lii ñu ko jox muy fonction bii document bi mu njëkk a jël dégg am na lu ma ci dégg lu mu wax tuuti wax dëgg yàlla te xam naa dinañ ci taxaw nu mu gën a gaawee loo man loo man muy ndam ndam ndam loo xam ba yow ma xam dalay topp mooy bàyyil xel kaso bi surtout nag jigéen na day jéem a seen bopp noo mën a fexe ba toog ak ñoom sax moomu gënal dugg ci biir toog ak ñoom ndax nag avocat nga. toog ak ñoom waxtaan ñoom ñu indiwaat seen moral. mais moral bépp nga toog ak say staff toog ak ñoom kenn ku ci ne cas par cas. xam nga kaso yëlëb ko ba mu fees ak yomb yëlëb mi ngi mel daal mi ngi mel sàkk boo xam ne nga bëri ci biir poche dana génn. ay wecc dana génn. loolu ngay def mooy que ne cas yëpp mun ko passé ay tuuma la. mooy ñii bor moo leen yóbbu. ñii xeex moo leen yóbbu. di coow moo coow fa mën yóbbu ay waay det petit Mhm. kon loolu moo tax ne kon irhamu yërëm leen moo tax ma du ma bëggoon tey euh, aseta maa ngi lay ñaan encore xam naa suñuy waxtaan saa ko déglu ci barki li nga xam ne bi tey loo bokk ak état la ci Cheikh Omar man nag dama bokk ak fu ma bokk ak Cheikh Omar Cheikh Omar mhm. am na fu mu bokk ak moom ndax dama am son bàjjen bu tudd Kumba Taal Jaaga Kumba Taal Jaaga bis ma ne sama papa waaw Kumba Taal bii lu ko war a taal bi mu ne ma yéen da ngeen bokk ci Cheikh Omar ndax Alassane Diaga moo bàyyi ko njum dem set ci xam-xam Diaga gën ay toora dem pire ngeen. Mhm. te yéen xaal pulaar ngeen. kon ma bëggoon ay setal defal nu mu gën a gaawee wa góor ñi sax jigéen ñi moo feeñ. Mhm. mais prison ci boppam na nga ko saytuwaat. Mhm. yëlëb ko moom set nit lu tee da gudd fan. ngeen am ngërëm yàlla mais am ngërëm seen parents yi xam ne ni lii bëggoon nañ ko. nit dara xaju ci moom lu jàmm. mooy ñaan yàlla nga def jàmm. nga dem ci kaso yi toog waxtaan ak Mhm. ñi ngi xam ne ay cas petit détail dañ génn la ñu dem du leen wàññi dara monsieur le président. dëgg la jërëjëf jërëjëf euh, yaa Seydi xam naa ni yaa Seydi 9 euh, jot na te xam nañ ni àjjuma da ngay waajal xutba ba moo tax euh, dañu bàyyi rek nga daal di dem ba alxames incha allah. yàlla yàlla defal li jàmm defal ko sunu xat bi nekk jigéen ku baax nekk États-Unis mhm. ne dama dëgg ci tur bi rek ndeysaan oustaz Diaga ah yàlla yàlla fay la. amiin amiin bu tudd sama tur. waaye yàlla xam ne sa tur. ndeysaan rasul xam ne sa tur. Mhm. li nga man te def ku mu téew mu néew tuuti na ci may rënd ci ñoom. Mhm. yàlla na yàlla fële na ko barkeel say njaboot. amiin boo leen ko xam tey auditeur auditrice nga. Mhm. yàlla defal jàmm. amiin leen nag alxames ak aju moom dafa naa dana gën a neex. incha allah wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf euh, Yacine numéro bi nag. alors 77. 77. 391. 71 30. dëgg la. ila liqa. jërëjëf ba alxames incha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors euh, ajaratu ñu daal di euh, ñëw ci dernier point bi. tey du konk rek. Ah. jàkkaarloo bi benn point rek la ñuy waxtaanee di euh, xabaaru démb bi ginnaaw di nga xamante ne. Euh, malgré la notification du juge Sabassi fay la direction générale des élections dans le dilatoire démb kii di Ayib Daffé mandataire bu Ousmane Sonko ak huissier de justice bi nga xamante ne pôle u Ousmane Sonko